yow tey au niveau de la conférence des leaders doo wax lu la sëñ Moustapha mii nga nekk ndawam. Mm-hmm. wax loowul. Mm-hmm. xam nga Khalifa Sall il est walla voilà il est mais ku am fulla la. Mm-hmm. xam nga Barthélémy Diaz lu taxaw wax li mu wax mu juyoo ak li nga xam ne moom la Khalifa Sall xalaat Khalifa Sall noppi te Barthélémy Diaz. Euh, c'est un membre éminent aussi de la coalition Barthélémy Diaz bokk na ci ñi nga xam ne euh, participer nañu à fédérer ces différentes forces Barthélémy Diaz ce n'est pas n'importe qui dans la dans la dans la coalition te li mu wax ba tey Khalifa weddiwu ko en réalité Barthélémy il n'est pas membre de la coalition Yewwi Askan Wi c'est Taxawu qui est membre de la coalition de la coalition mais taxawu Barthélemy ngi ci biir. je sais ah. mais en tant que membre c'est pas Barthélemy qui est membre c'est euh, le mouvement qui est membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Euh, que Barthélemy génn wax xalifa waxu ci dara loolu c'est entre eux c'est au sein du mouvement c'est-à-dire euh, man lu ma bëggul mooy wax lu ma wóorul spéculer. mun naa am mun naa def commentaire mais commentaire boo koy def it da nga koy teg ci fu wóor. mu nekk un commentaire objectif euh, raisonné xel mën na ko jàpp nga ni euh, Barthélemy c'est un membre éminent bu am responsabilité voire même le maire de la ville de Dakar au sein de du mouvement Taxawu am na lu mu wax Khalifa waxu ci dara Khalifa on était en conférence leader hier rafetluwu ko rafetluwul li Barthélemy wax mais nekk loo xamante ne nii euh, nekk na lu lu lu wax ma sax xalifa mais sénégalais boo gis waru rafetlu lu mel noonu. m'a chargé de vous dire que euh, Khalifa Sall vous a envoyé un message. Enfin, vous il vous demande, de regarder votre téléphone et de transmettre le, le, le, le message là. Euh, c'est sans, c'est, comme là, ça concerne ce que j'ai. C'est qu'en dit. discipliné. je <laughs> fais partie de ceux qui détestent jël téléphone ci émission parce que pour man bokkul ci cër euh, boo nekkee émission yaa ngi émission warloo jël téléphone di def mais comme. moi je suis obligé d'avoir oui, oui, non, mais je parlais pas mon <laughs> donc Khalifa qu'est-ce qu'il m'a dit euh, Cheikh Tidiane sur la sortie de Barth Khalifa Sall rafetlu ko bon enfin pas il m'a envoyé ça euh, non euh, je sais pas euh, xaw ma lii la message. Tidiane sur la sortie de Barth à 7TV Khalifa Sall rafetlu ko xalifa li ñu waxtaanee dem j'y reviens. Mm-hmm. li ñu waxtaanee dem c'est qu'en fait li mu wax c'est très clair Barth dafa doon répondre Ousmane li mu wax te xalifa dégluwul ci li mu ñu wax dégluwul ñaari version yëpp ñun am doo sax xëy na c'était pas l'objet wax ko fii. c'était pas du tout l'objet dugg ci li ñu waxante au sein de la conférence des leaders mais su ma nee xalifa euh, rafetluwu ko mais xalifa it rafetluwul xëy na euh, peut-être li Ousmane wax wala Babacar di répondre c'est en fait ñaari xarit lañ. xalifa lu mu la wax ci message. non non enfin j'ai pas vu de message. j'ai ah. vu une image qui m'a qui m'a transféré euh, Cheikh Tidiane Youm bon ça c'est 7TV hein ce sont vos gars qui l'ont mis sur ah, ah non euh, euh, la sortie de Barth Khalifa Sall rafetlu wu ko ce qu'ils ont dit et ce qu'il m'a transféré mais j'ai pas vu de message peut-être que euh, Khalifa devrait a euh, Abba je pense que y a, y a un homme de qui a appelé pour dire ouais. que Khalifa Sall euh, souhaite réagir. Ah, il m'a, il m'a, salam, salam, euh, il vous a envoyé SMS. Non, bon, il me dit salam, salam. Ses propos te sont traités quand est-ce que j'ai désavoué Barthes Mais c'est pas, j'ai jamais dit que Khalifa a désavoué Barthes. c'est-à-dire Khalifa rafetluwul déjà échange yi am loolu du bon mi ngi woote rafetlu. mën nga ko def au parleur ah? Khalifa. c'est c'est exceptionnel oh, oui <laughs> c'est vraiment exceptionnel. allo Khalifa oui. Dites-lui qu'il est en direct. J'ai activé, j'ai activé, attends, attends, Khalifa, Khalifa, j'ai activé le haut-parleur du téléphone. Vous êtes en direct. Ah, non, non, c'est pas ce que je veux dire. je parle pas en direct. Ah d'accord, ok, il veut pas ah, d'accord. Euh, on parlera dans après l'émission Khalifa. D'accord J'ai lu le message, dana danaa gën a leeral j'ai pas l'impression que dégg nga lu ma wax. merci merci beaucoup. très bien merci non je n'interviens pas merci. très bien bon c'est une émission. il n'intervient pas. c'est une émission assez exceptionnelle. c'est c'est un talk show. ce que je veux dire ce que je veux dire et j'y reviens c'est très clair dama ne Khalifa rafetluwul xëy na je suis pas allé au bout de mes pensées. Euh, c'est-à-dire li am amul leader bu ko mën a rafetlu. non dafa da nga ne Khalifa rafetluwul def. non rafetluwul échange bi xëy na échange bi. am et je vous ai dit Khalifa rien ne l'empêche mu am na. non loolu après nga mu ko voilà je vous ai dit. ça c'est après Khalifa bu d'accordul woon am na il est calme il est serein mais. am na fulaay. wax recadrer Barthélémy lu ma la bëgg wax. Hmm? déjà je l'ai dit tantôt bokkul ci cër ñëw ba di dugg ci détail yu yu ñu waxtaane au niveau de la conférence leader bokkul ci cër mais dama ne la xëy na je ne me suis pas exprimé clairement dama ne xalifa rafetlewul c'est-à-dire échange bi am rafetlewu ko te kenn rafetlewu ko man rafetlewu ma ko keneen ak keneen rafetlewu ko au-delà de sa mais Ousmane Sonko ak Barthélémy su sont des amis sénégal yëpp xam nañ yooyu donc bu lii amee seen diggante kenn du ko rafetlu

Euh, évidemment euh, Ousmane Sonko. évidemment et il a réaffirmé euh, leur ambition de garder intacte la coalition pour faire face aux aux aux donc je présume que qui ne dit rien consent. Si Khalifa Sall n'a pas pris l'option de désavouer Barthélémy Diaz, c'est qu'il c'est qu'il est d'accord avec Barthélémy Diaz. Attention wax nga ma ko sànq ma ne la xaw ci dara sama yoon newu ci que Khalifa Euh, désavoué wala ànd ci li Barthélémy wax loolu ñoom ñaar la. la ñuy waxtaane la si ñoom ñaar xaw ma ci dara bu ma ci du waxtaane te sax xëy na loolu jarul sax ñu ci yéen mais bi may wax xëy na je suis pas allé jusqu'au bout parce que man it li ma gëm laay wax de amul nit ku ma ragal ci àdduna li ma gëm laay wax. xalifa bu ma xëy na bi ma nee rafetluwul li Barthélémy Dias wax li ma bëggoon wax foofu mooy rafetluwul ci boppam échange boobu war a am parce que loolu amul kenn ku koy rafetlu amul kenn ku koy rafetlu yow ci sa bopp sax gëm naa ne rafetlu la ko. ah non moi j'applaudis moi je suis journaliste ah. je sais bien tant qu'on me donne de l'événement j'applaudis ah. je sais bien mais toujours est-il que même bu ñu la jox événement aussi sénégalaise nga. ah <laughs> sénégalaise nga. non. ce sont des discussions de souterraines de journaliste. ce sont des discussions souterraines qui remontent à la surface et c'est très intéressant. Non. C'est intéressant en tant que Moi, je ne suis nullement choqué. J'ai même envie d'en savoir plus. ce que je veux dire ah. par là, li ma ci bëgg a xam effectivement en tant que journaliste yow da nga war a joxe information donc lu mel noonu bu amee da bëgg a xam lu am mais li ma bëgg a wax mooy en tant que sénégalaise ay nit yu nekk. ànd nekkoon ay dem ba moom ay échange yu mel nii kenn du ko rafetlu